salaamaaleykum man maa ñëwaat dama ne nañu jox suñu paabi bi ministre de l'intérieur nañ ko jox poste bu baax xool benn ambassade bu baax ci extérieur bi ñu yóbbu ko foofu def na liggéeyam ci gendarmerie ba mu dem retraite atom yi mayu ko pour mu mun a xeex na dem noppale ko malgré ci armée la jóge waaye mënul yor réew mi ci ministre de l'intérieur parce que borom xam-xam yi ñaar ñoo am ci borom xam-xam mooy borom xam-xam bi nga xamante ne danaan problème baa ngi nii di ñëw waaye bàyyi leen ma xaar ba problème bi ñëw bu ñëwee ma ma réglé ko bu ñëwee bu amee ba pare ma ma andi solution bu ko defee ñu ne ma maa ngi liggéey moom loolu la def démb bàyyi ba nit ñi rey mu doog a yónni ay policier am na borom xam-xam boo xamante ne moom danaan problème bi balaa mu yegg si man dama koy gàttandu loolu mooy bi ko Ousmane Sonko waxee ni jënd nañu ay arme dafa waroon a yónni immédiatement ay nit ñu dem def enquête yi fuye kër Barthélemy Diaz maire bi kër papam ak dëkkandoo mi ñu xam lan la andi ba pare ñaari borom xam-xam yooyu ñoo am moo tax ministère de l'intérieur nañ ko yóbbu retraite ñu andir ñu maître taal maître taal après les élections mu nekk ministre de l'intérieur bu ñu mënul maître taal nañ jëm jëli benn lieutenant bu ndaw ci biir armée ñu def ko ministre de l'intérieur dina régler affaire nervi yi parce que nag mënuñu nekk ak Macky Sall ba dóor Macky Sall ba Macky Sall daw Macky Sall bàyyil ñu fa ay nervi nervi yi ñun ñu nekk ci nguur gi nervi yi man ñu ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo nekk ci nguur gi loolu dafa yéeme. ñun ñu nekk ci nguur gi ba pare dàq Macky ba pare nervi yi nekk ci biir Sénégal nervi yi man ñu man mosuma gëm ni ñun bu ñu ñëwee suñu nguur ay nervi dinañu continuer di jooy affaire ñun dinañu continuer di wax ay affaire nervi naka la ñuy jooyee nervi ci suñu nguur nguuru Macky Sall Macky ñu dàq ko mu daw ay nervi nar fay continuer encore ba deux mille vingt neuf ci biñ suñu biir réew ndax lan ndax ministre bu mënut a def liggéeyam kon ñun bu ñu amoon terrorisme fu ñu jëm. ñun bu ñu amoon terrorisme comme Mali Burkina Faso Niger kon ñun fu ñu jëm te xool leen xale yi nu ñu téye réew yooyu régler affaire terrorisme bi léegi xool leen attaques yi wàññeeku nañu complètement ci ci Sahel bi dañoo wàññeeku ñun nervi rek nervi nervi nervi ministre de l'intérieur mënta régler nervi mais dafa yéeme dafa yéeme dafa yéeme kon ñun suñu amoon terrorisme ñun nu ñuy def waaye nañu dàq ministre de l'intérieur bi waaye dindi leen ko foofu waaye s'il vous plaît na ñu dindi ministre de l'intérieur bi ah même le problème di nga xamante ne mooy problème mu ah ñi nga xamante ne def nañ leen contrôle judiciaire ñu ngi rëcc di dem rek plus de cinq personnes ñoom daw nañu dem seen yoon ñoom Doudou Ka ñoom Dior Dia Doro Doro Gueye ah ñoom ñoom ñoom Mame Mbaye Niang ñëpp daw dem seen yoon amuñu xam-xam bi pour bloquer leen ba jë ba léegi ñoom ñii di daw ba léegi jëluñu benn décision bu rëy boo xamante ni nit ñi mën nañu wax ni ñii dootuñu mën a am fu ñu rëccee fu ñu dawee kon son ne sont pas des intellectuels yoo xamante ne dinañu dugal seen bopp ay xalaat yoo xamante ne mën na bloquer système boo xamante ne seen morom ñu ngi koy def contre ñoom alors que yomboon na pour bloquer ñi ñiy daw ñi ñëpp yomboon na pour ñu bloquer leen il suffit ñu takkal leen benn lam du du ñu mën a duggati benn aéroport ci àdduna bi fu ñu dugg ci aéroport bi lam bi dafay yuuxu lam bi dafay yuuxu te dañ lay wax dellul sa kër dem régler sa problème ba pare mënoo dugg suñu avion loolu ñoom amuñu intellectualisme xalaat pour régler problème boobu ba léegi amul benn décision bu boo amul xel sax nga boole kenn ku nekk benn policier. yow yaa ngi ci contrôle judiciaire jox nañ la ñaari policier ñu garder la comme duñ la tëj lii mooy wane ni ñii amuñu xam-xam boo xamante ne pa bi amul xam-xam pour yor ministre de l'intérieur rax si dolli boo leen seetloo attaques yi saa yu amee rek ngeen gis Alioune Tine jénn faral faral opposition wala mu faral ki kiy jaxase après nga gis rajo bi jénn faral kiy jaxase télévision bi jénn faral kiy jaxase opposition bi génn faral kuy jaxase loolu boo ko gisee nga war a xalaat ni sur le plan intellectuel la France bëgg a nguur bi mais comme le Sahel c'est le militaire ñu bëgg ko déstabiliser militairement mais sur le plan le Sénégal comme dañ dem ci élection dañ koy déstabiliser intellectuellement loolu boo boo mënul xalaat xalaat boobu yaa ngi nelaw yaa ngi nelaw bàyyi leen démocratie bi te ñu dem ci révolution bi révolution bi rek moo mun a régler suñu réew fu mu toll nii ñaari benn ñaar benn nit mënta fecc si ñaari làmb benn nit mënta fecc ci ñaari làmb ci benn làmb rek la ñu mun a fecc soit si démocratie soit si révolution et révolution bi mooy solution paa bi nañ ko dàq paa bi na dem retraite paa bi mënta yor réew mi ministre de l'intérieur bi mënta yor réew mi dafay nelaw rek moom mu ngi nelaw parce que internet bi ñun nuñ koy tope paa bi mënu ko toppee noonu parce que ñun sax mënuñu accompagner information yi daw ci internet bi waxatuma laa paabi bi paa bi nañ ko bàyyi mu dem noppaleku